ñeel leen al arda firaasan jaala yi nga xam ne bind lay firi yëpp ci alquran day ab ñaari mafool jaala bind na làkkum ñeel leen al arda suuf sa firaasan xaal bi nekk nag foofu mu nekk nag dib laltaayu suuf si yàlla la taxal ko nekkoon kenn du ci mën a taw wa sama asamaan sa binaan mu def ko tabax yàlla tabax na laltaay na waa am salaam wàccee maa ndox mi ne sama na bàyyi ko ci nuuri asamaan fa axraja mu génnee bii ca mboori su mbàq ba mu ne samaraati meññet lu mu ca génnee risqan ak lekk risqan wërsëg wu ngeen di lekk lakkum ñeel leen ceeb yu neex yeeg cere yi ak yàpp yeeg yëpp ci asamaan si la bàyyi ko ci ndox mi la bàyyi ko ndax bu tawul dara du ñor te bu dara te bu dara ñorul ñu doon li ñu doon bay dara du ci baax kon bu ngeen am lu ngeen lekk gannaaw yëpp ñu ne sàmma yi risqan lakum lépp te ñu ñuy bàyyi ko ci asamaan falaa tajaaloo bu leen defati lillaay ñeel yàlla andaadan gor du ko def andaadan day dend ak yàlla andaadan ay dendandoo di tudd yàlla yi tudd keneen yaakaar yàlla dendale ko keneen wa antum ci yéen taalamuuna ngeen xam xelu ne kooku mënul dara yàlla man wa in kuntum fi raybin mimmaa nazzalnaa wa in kuntum dem nekk ni leen yéen waa Makka waaye am naa la waxoon ñoom la waxal fi raybin ci sikk mimmaa nazzalnaa ci alxuraan jii ma wàccee àllaa dinaa ci suñu jaan bii muy Muhammad bu fekkee ne da ngeen cee am sikk faatu andi leen bi sóoratin aw saar min mi siwu day mu saar yi saar wu day na bàqara indi leen ko wala saar wu ko gën a gàtt wala weneen indi leen ko min misli yi indi na balaaxa ba ca saaru ut faatu bi asri suwalin andi leen bi asri suwalin fukki saar faatu bi asri suwalin maanaam indi leen fatiha bàqara ali imran nikaaw maayida lanaam laraab tawba yunus xóot indi leen bi asiri suwarin ñu fukki saan foofu lañ andi leen ko andi leen ko dañoo mën a andi sax wedda ah yàlla nee na bu ngeen caameeg lot addoo woo leen suhadaakum seen yàlla yi ñu ngeen di seede ne yàlla lañu ak ñu leen di seede ne yéen yéene seeni baadoo la min dooni laay bàyyi fa yàlla ñu ngeen di jaamu bàyyi fa yàlla woo leen leen ñoom ñëpp in kuntum nem nem ngeen saadiqiina di wax dëgg maa ngi leen di xaar fen leen tafaaloon ndim indi wu leen aw saar wu day nii min misli yi wala fukki saar ndim indi wu leen ko ngir seenug lot walan tafaaloo te du ngeen ko indi mukk lam moom dafay dàq lale li paase lam nag li jublu si lay lànk defu leen ko te du ngeen ko def mënu leen ko te du ngeen ko mën seen leen tafaloo wala tafaloo waaye waaye kon nag fa tàqoo ragal leen fa tàqoo ragal leen naara sawara latti ba nga xam ne waquuduha taaloom ga lañ koy boyale mooy naasu yéefar ya wal hijaaratu xërëm ya moom lañ koy boyale moom lañ koy boyale naasu wala hijaaratu waquuduha naasu wala hijaaratu mooy yéefar ya ak këram ya uhidat xaroos na leen li a yéefar yooyu sawara woowu xaroos na ko kon sawara yi lil keefari ni ñeel yéefar yi wa basiri solool yow yonent waxal lesi nañu nga xam ne amanoo gëm nañu nga xam ne dëggal nañu waa mi la ñu jëfee saalaati farataak sunna farataak naafil la ne ana jannaatin naka àjjana lahum ñeel na leen de ay tool ci àjjana ay garab ak i dëkkuwaay tajri dina daw la naaru ndox ma min taatiha ma ngay ball ca suufi kër ya suufi étage ya foofu la ndox may jaar di wal kulomaaru fi ko bépp buñ leen bépp buñ leen wër sëgalee bépp buñ leen indilee ca ngan ga ñu indil leen yàlla invité leen indil leen ñam ñam ca gannaaw ñam meññet ca gannaaw meññet min haa ca ñam yañ leen di jox min samaratin meññet buñ leen andilee min samaratin risqan ne leen dee wërsëg wërsëg la ñam la lakum ñel leen xaalo ñu ne asa wi jam de la si mooy kem niroo naag lii day dafa dàq waaye niroo naag ah la nga xam ne rusuk naa doon nañ ñu ko wërsëgal min xablu ci àdduna la jëkk àjjana gisoon nañ ñam yu mel nii waaye bokkuñu nag woo te yàlla dikkal leen di ndax li tax mu neex ci ñoom mooy mu indil leen lu nuroo lu nuroo ñam yi ñu gënoon a bëgg ci àdduna lu nuroo ñam yi ñu gënoon a bëgg ci àdduna ñu am ci xam-xam day yokk neexit wi xam nga loo amul xam-xam li nga am xam-xam a ko dàq li nga am xam-xam a ko dàq li nga am xam-xam a ko dàq moo tax Abu Nawas sangam ba ba mu koy jox sàngara mu ne ko boo ma dee joxe ci sàngara si na nga mën a am sàngara si baat bi boo ko ci tuddee day neex ci man waaw waxul lii hiya alxamru ne ma lii day sàngara la am sàngara fi naanal waaye bul ñëw rek jox ma ko ba tey naan ko te attaaya daañu ko wax de man bu ñu la soxla attaaya da nga koy gis waaye buy dem làq ji rek dama indil kaas moo tax xam-xam a neex doo amul xam-xam dara du neex yow dara neexul yow yaay wax neex na rek wax nga dëgg oto bi nga muta saa benn mérale ak ñami àdduna ya wala hum ñeel na leen fiyaa ca àdduna fiyaa ca àllaaxira kon aswaajun ay soxna wóorul ay ni moo taxaarifin yu ñu laabal ci mbërët dañu gis mbërët duñu am doom du gis deret woom te ñoom xaal doona way sax lañu fiyaa ca àllaaxira woom fiyaa xaali doona maa kisoona abadan duñu fase duñu fay duñu dee duñu laaj njël duñu laaj dépasse duñu wopp doo jënd wopp naas doo def dara lahum fiihaa azwaajun mutahharatun ñu ne laabal ci lépp inna laa ni ci buur yàlla laa yastahyi rusul lottul lottul am yàlla de ba mu tëral misaal mu def misaal mu def masalan misaal muy ma foolum awal maa muy ñaareel bi nakkiri mawsuuf maa kem maa misaal mu mu doon maa kem ba oodatan wenn wu yoo yàlla lottu la def misaal ci wenn wu yoo baxoodatan mooy wenn wu yoxoo albaxuun nag mooy yooyu bari fa maa fawqa ak la nekk ca kaw yool yoo ne na karkadaan mu ëpp ñëy yoog la ko ëpp fa amaa la seen daal gaa ñoo xam ne amoonoo gëm nañu fa yàlla mën a ñoom danañu xam ne anna woon naka kem bi misaal bi al aqu dëgg la gu sax ñu ne duñ ko bàyyi ko ci seen borom wa amaa la seen daal gaa ñoo xam ne nag kabaroo dañoo weddi ñoom fa yàqooloon ñu naan maasa ana lan araade di nam laahu buur yàlla bi aasa ci lii masalan misaal bii misaal moom lu ci yàlla nam yàlla ni lu réeru na bii ci misaal bi lu bare bare bare kasiran lu bari wàcc fa dëgg wa yahdi mu jubal bii ci misaal bi kasiran lu bare bare bare wa maa yulidu wante nag du réer bii ci misaal bi illa alfasiqiina ndareel ña bëtt ñagu sunna ndareel ña bëtt ñagu diine ndareel ñi nga xam ne dañoo bëtt làng ga kenn ubbilu leen kenn ñàggilu leen dañoo bëtt mooy faasix fasaxa bëtt lay firi génn ñu waxul ilaa xaarijoon kuy génn da ngay jaar ci bunt xam nga lu bare bare bari diine dañ koo bëtt dañoo bëtt ñagu diine li diine wurmbaloon ne lii la dañ koo bëtt génn ca bitti mooy faasix bi lislaam amee rek laam looy réer yu amul woon faasix ak naafiq ci lislaam la juddoon ci diine la juddoon waaye boo demee ci ñoom imro xay si ñoom ñoo ñu daan way doo ko fa sakk loxo boobu doo ko ci gis doo ko gis ci seen téere way boobu la maa la xaat doo ko ci gis doo ci gis naafiq doo ci gis faasix ci diine rek aha ilal faasiqin lësina moo ñu nga xam ne yan xuduuna teqar ci nañu firi nañu ahadallahi wala réew yàlla wala wala rente woon ak ñoom maa adaw ilayhim fil kutub min al iman ci gëm yàlla bi muhammad min baadi misaaq yi gannaaw ba mu dëgëree wa yaqtahoona ñu dagg maa la nga xam ne amara digle na laaw bur yàlla bi ca loolee yàlla digle an yoo salla yàlla dafa digle ñu jokk ko ñoom ñu dagg ko muy ak bokk wayu si doona ñuy yàq fi lar li ci suuf si ci ay mooy yàlla ba tax dootul taw baabu tawet du am njëriñ ulaayka ñooñu gaay un ñoom xaasiroona perte nañ li masirin nga mujj ga ñuy mujj ca sawara yàlla ne yéen waa màkk mooy yéen kay fa tàkk furoona sax yéen naka ngeen di weddee wa kuntum ci lu wóor a wóor a wóor a wóor mooy waaw gi wa ci lu wóor a wóor a wóor kuntum nekkoon ngeen am waatan di way dee ba ngeen nekkee toqante man ni ci seen ndiggi baay fa ahyaakum yàlla dundal leen ci seen róomi ndey mu dundal leen suma topp yum ñu tukum mu rey leen bu seenu fan jeexee ñaar suma yuhyikum topp mu dundalaat leen laalu bi xarxakum suma rasaxakum suma yuñiitukum suma yuñiikum te saaru fandaak ah ku la dig ñeent won la ñett ji mu des benn rek gis ngeen benn bi xalaxakum suma rasaxakum gis ngeen wërsëg bi weesu ngeen ko suma yuñiitukum ñi dee gis nañu dee gi ñi dund it gis nañu ñi dee mu des lan suma yuñiikum
xam nañ dëgg la ngeen gis ñett ñi ba pare nag weddi benn bi biir baax su ma topp tur jox na des na delloo leen illee ba ngeen ne jaww fa yàlla kenn ku nekk di xool sa morom koo moom yàlla li si mooy ka nga xam ne xalaqa bind na lakkum ñeen leen maa fi ardi yàlla nee na li ci suuf si yëpp may naa leen maa ko bind pour yéen de suuf ni mu yaatoo li ci kaw suuf lépp yàlla nee na maa leen ko may xalaqa lakum maa fil ardi jamii'an mboole moom ci boppam nag mu bàyyi leen ak suuf si su ma topp nag istawa ba'dal xalqi larli mu not nag ak ñu ni mu toog am ñu ni mu yem ñu ni yàlla amul béréb kon nag su ma stawee mu not fa gën a kawe baada xalqil ardi mu jublu nag ila sàmmaay jëm ci bind asamaan moo tax ñu koy firi suma stawee mu jublu nag ila sàmmaay ci bind asamaan te sa yow na mooy yemale nag juróom-ñaari asamaan yi ci liñ ci tudd weer gi mu ila sàmmaay dàmmir gi foofu la dellu ila sàmmaay walam weral nee na asamaan yi bañ nekkee kaana taaraf kan dafa taq naa xuma suuf ak asamaan taqaloo dafa tàq naa moom fa sawayna sab'a samawaatin moo tax bañ nekkee di asamaan teqalee gu ko tudd na ko ca saaru duxaan dangaa kaan yi am nañu foofu seen xam-xam bopp liif googu di ñuul tey ci def yépp di naar ca tafsir waaw ca tafsir la moom rek moo ñuul loolu la ko waral xam nga bari na sew sew bari na sew sew bari na sew sew loo xam ni moom buñ la ko laajee la fa jekk daal mooy xaw ma ko la donc mu yemale leen nag sab asamawaatin juróom-ñaari asamaan woo watamam allimun xam na bi kulli seen xam-xamu yàlla nag bokkul ak sunu bos ñoom liif bi dañ koy muulal waaw googa googa foofu du noonu la sëñ bi waaw juróom-ñaar la waaw ñun la def facteur dama sama waati
sab asamawaatin
sama waati maa bi wala waa bi waaw waaw dañ leen di ñuulal liif bi waaw liif faaw day ñuul faaw day ñuul waaw ba mu xonqe na juróom-ñaar juróom-ñaar yi ci biir dañoo xam
ñoom luñ leen di def
dañ koy lii bu xonq lii bu waaw loolu lay loolu lay laaj nag loolu la àlla ñuy laaj waaw lii bu xonq lañ koy def li ci def yëpp day naar booba rek mooy ñuul waaw
dëgg la
waaw boobu mooy juróom-ñaari asamaan yàlla teqalee bu ko dañ ko teqalee nag la commencé naar am nekkee rab ko nag booba la ñuul boobu ba mu teqale ko ku ne dem sa bopp nag ñu naar nag xonq nag ah aka sew dafa samawaatin wa huwa bi kulli shay'in alimun muy xam-xamu yàlla xam-xamu asaliya yàlla moom xam-xamam naka jekk ni mu day la day naka jekk ni mu toll la toll gënu fee bari te du fi gën a bari it du fi gën a néew ñun nag sunuy xam-xam yan diw de léegi am na xam-xam ah dafa jàngi woon kooku du asaliya da benn waaye raxmaa laaj ñu asaliya lu muy firi benn ustaas mu ne ko asaliya mooy naka jekk mu ne ma abadiya mu ne ko faw yàlla naka jekk ni la mel te it faw ni lay mel waaye am na xaas léeg-léeg am na xam-xam léeg-léeg yëpp ak san am na yaram léeg-léeg malaan rek te bu soxlaan soxlaan ak san donc te bu soxlaan rek la waaw day gaaw waaw mooy li ma doon wax ci raxmaan rek waaw mooy malaan rek waaw bu ko defee nag mu ni waskur fàttalikul yàlla nag xam-xamam atelier la is xaala waxtu boo waxee rabbuka sa borom lil malaayikati yàlla nee na malaayika yi inni man yàlla day jaayilun aji def laa ismu faayil nag dafay nangu ca kanam li kanam ci kanam li kanam aji defi laa mën naa doon lu nekk ca kanam aji defi laa jaahilun aji defi laa fil ardi ci suuf dafa guma ko waaye dinaa ko def aji defi laa dooni aju def laa da nga naan aju defi laa xalifatan ab xalifa xaaloo ñu ni ko atajàllu yàlla nee na kiy jàng keex ci jàng alxuraan di jàngale sunna di ko jàngale moo ma wut ci suuf si mooy xalifa yàlla moo tax yonent bi nee na maa it koo koy sama xalifa allahuma irham xulafaa yi ñu ni ko yaa rasulallah wa maa xulafaawuka ñu ni ko kan mooy sa mooy sa xalifa xalifa mu ne la si na yar wow na ahadisi wa yuhallimunaha naas ñi nga xam ne dañuy solo sama addisi di ko jàngal nit ñi ñooy sama xalifa man rasulullah ñoo xalifa yàlla yëpp ah kon nag fu waaye mën a xalifa woo xalifa ku mën a doon ngay xalifatu rasul rek di xalifatullahi fil ard ah waaw xalifatan atajàllu ñu ne ko ndax da ngay def fi ci suuf moom koo xam ne yu su dee yàq fiiha da ngay def ci suuf si si ba mu yàqoogul fiiha ci suuf si ba mu yàqoogul man koo xam ne yusudu day yàq nag fiiha ci suuf si bil maasi ci ay mooy yàlla mooy fikum muy tuur dima ak deret doomu aadama yi boo leen fi yóbboo dañuy tuur deret di xaañ nit ak di rey nit ak di def lu ne rey nit rey nit dóor yaa ci caw bal tëf mu dee tuur deret tuur deret yàlla nee na ñaar bu ñu songoo ku nekk ngàbb jaasi wuti sa moroom xaatiloog maqtool yépp dañuy dem safara ñu ni ko yaa rasulallah ki rey moom ki nar a rey moom ki rey moom moom xam nañ ne war naa dem safara waaw ki ñu rey nag mu ne ki ñu rey rey la bëggoon ñoo yem alxaatilu wal maqtuulu fi naar yàlla jëggalul yàlla jëggalul dégg nga nee na ko war naa nu te ñun malaayka yi nu seddihu dañuy sabba dañuy wax subhanallah subhanallah subhanallah yonent bi nee na woon ku bëgg a ku bëgg a am junni yiw ci place bi benn waaye geesu ne ko man ne ko man mu ne ko man doo bëgg naa mu ne ko defal téeméeri subhanallah da nga am junni yiw alfu asanatin subhanallah junni yiw wala abdulillah junni yiw wala akbar junni yiw nu sabbihu bi am dikka nuy lamboo di sabba sa cant naan alhamdulillah wa nuqaddisu nuy sellal itam nag du nu boole sa tur ak dara làkka ñeel la nun malaayka yi buur bi ne xaaraa wax buur bu man taala xam ngeen dëgg de waaye ñu ne ko man aalamu xam naa ca kanam xam naa ca kanam maa laa taalamoona lu ngeen xamagul fii sixlaabi aadama xaadama mii ma def xalifa bàyyi ko ci suusi xalifa gi ma ko def xalifa xam naa ca kanam lu ngeen xamul balaa yi ko yëpp dañoo kontar ne aadama du nekk xalifa ku ne def sa candidat yàlla ne man sama candidat mooy Adama yàlla ne sama candidat mooy Adama aha yéen seeni candidat man ànduma ci kon nag man dem rek te kanam da ngeen xam ni xam naa lu ngeen xamul yàlla nag wa allama mu daal di xamal nag Adama al asmaa lisim ya al asmaa tur ya ba tey jàngalekat yi école yi ci loolu la ñuy sukkandiku lisim yi la ñuy jëkk a xamle naan la lii kowbun kopp la lii samsun jant la lii xamarun weer la bindal la lisim yi ci tab ci tabla bi bala ñoo dikk ak yow ci ay feele ci faay la ci yooyu ah waaw ismun wa fihlun wa arfun borom ajarum daal leen di bindal li fi yépp ci tabla bi jàngalekat yi xam nañu loolu moom la yàlla def ak aadama wa allama mu daal di koy bindal li fi yépp asma ne ko lii bàttu kudd la lii ab këll la lii xar la lii bëy la lii nag la lii gëléem la lii doomu aadama la lii nangam la lii nag mbaam la lii maam lii nag mbaam àll la lii jaan la waaw lii ab rajo la
lépp nag lii ab téere la loo ci xam ne loo ci xam ne lii loo ci xam ne lii turam kii nañ ko rek moo tax lépp loo xam li amaguñ ko kenn du xam turam loo rajo moom mu nga tudd ba rajo xewagul kenn xamul turu rajo lu xoon kenn xamul lu koy télévision waaw maa yolu boppam sa waa jooju ñuy wax mu Muhammad mu tawali sax saxraa yi gis naa ko muy wax yooyu ma gis te mu tudd ca baat bu ñu naan laseer xaw ma ko ma laaj ko àll mu ne moom xam na ko jënd na ci sax bu kii moom la docteur yi di seete kii turam mësul am lu dul bi mu amee rek wa allama aadama nag lasma
lépp la ci woon yàlla nag bind na lépp nag waaye mu denc nag xaarixu bi am na waaye mu denc nag zaayiru bu dara feeñee rek la saayiru soo ko def liggéeyam feeñal ko feeñal gi nag yàlla bind na lépp xamoo li feeñagul itam bind na ko waaye mi ngi saayir wi rek lu feeñam des rek mu dox ci saayir
ah ñaari ñaari feebar yu bees yi xew.
waaw muy Sida ak Imola.
waaw mu ngoog kenn xamu ko woon.
mu ngoog kenn xamu ko woon waaw.
saayir bi génnee na ko
yàgg na fi te kenn xamu ko.
lasna kulla suma aradahum nag dafa nekk taxlif ki am xel ak ki amul xel suma aradahum moo tax mu ne hum mu gaaral leen nag ñoom malaayika yi mu zàmmayaat yi li taxlibul uqala ala al malaayikati yàlla ne malaayika yi waaw ay wa nag ci examen bi nag te xaala mu ne an bio nii wax leen ma nag bés maay awla yàlla teewal na yëpp kat rajo baa ngi nii këll baa ngi nii ndab laa ngi nii dégg nga gëleen gaa ngi nii kéwél gaa ngi nii yàlla ni wax leen ma ñii nañu tudd
fekk wax na ko Adama ba waaw adama moom doy nag ko day nag
wax leen ma am bio nii bés maay awlaay wax leen ma tur yi ñii in kuntum nem ne ngeen saarixi ne di wax dëgg ne yéen a war a xalifa wu wa même wax ngeen dëgg ne waruma def aadama xalifa malaayka yi ñoom it am na lu ñu xam waaye ñeme wuñ ko nag xaaloo ñu ne ko subhanaka tudd nanu sag sell de waaye allahil ma dir xam-xam la naa ñeen ilaa ma alamtana nga day li nga nu xamal xamaloonu ko nag
ñu wax rek ñu xam ah di ilaa ma alamtana loolu mooy ki ko xam yàgg ko xamal aha elaw kay buñ ko waxee yëpp ba natt nag ah, bu résultat ñëwee
fekk mu dégg ko ba yem du tiit innaka naka yow anta yow yàlla alxakim alxalimu yaay aja xam ja bala ngay nekk akim ndëkk jëkk a nekk alim parce que ilmu mooy jër hikma ilmu mooy jër hikma alxalimu alxakim Mhm. alxakim moo tax waarekat buy waare su ngay xamee am na xam-xam amul xam-xam ba amul xam-xam ay hikma kese lay wax du indi laaya du indi hadis du indi dara lu am maanaam hikma yi géwél yi di wax rek Mhm. alimul akim yàlla daan ne yaa adam jógal yaa adamu an bi wax leen ko ne leen ko adama wax bokk bés maa yéen ci seen tur yi adama daal di jóg kii nangam la kii nangam la kii nangam la kii nangam la kii nangam la kii bëy la mooy dëkk ca kër ga kii kéwal la mooy nekk ci àll ba kii ganaar la mooy dëkk ca kër ga kii sokkeer la ci àll ba lay dëkke kii ganaar la moom di leen di wéttali moo tax mboolem li nga xam ne lii dañ koo moom yàlla da koo teqalee ndax bañ ko tooñ mboolem li nekk ci àll bi kenn moomu leen lépp a nuroo sokkeer yépp a nuroo naat yépp a nuroo waaye ganaar am na gu weex am na gu xonq sama ganaar dafa ñuul kii ni sama ganaar dafa weex waaye sokkeer yépp a nuroo naat yépp a nuroo kéwél yépp a nuroo ah xam-xamam asma ak yooyu lu wuute xam-xamam am na xam-xamu Muhammad moom Muhammad dafa xam moom li ko li ko bésur yi naan lakk saatul ulloom Ustaz, eh, war na. ñu ne ay buuti xëy buuti xam-xam ya dat ci xam-xam ya Muhammad moom dat ya la xam mu sàmmayaat ya xam nga yàlla yëpp la xam na
xam nga xale bi ci sa biir kër boo tëralee boo tëralee aw njur wecce simin teg ko ne ko kii lu mu doon ah papa day kii simin la waaye yow nii di maam daan yow xam nga simin yi weñ diñ ci roob xam nga njur wi garab dañ ko dagge xam nga lawbe ba ko doon yett xam nga njur bi xam nga xam nga liñ ci ruux ruux ba roof ba tax tuddatul njur xanaa tudd simiñ
wallaay xam-xam mu am na waaw lakk saatul uloomi min aalimi xëy boobu min aali aadama al asmaaw ah waaye dafa toog ndax Abdou Sadi ba ko yàlla wax yàlla.
لك سات الأولى من آل يخي ومنها لآدم الأسماء كوكو بصيري وكو ها
seen morom مدا ينن تي موم موي كي ني تودé بوكو سي waaw bokk ci
بوكو سي موم موم بوكو سي موم
dak دنگ لك سات الأولى فالبعض من بيسمان dara moo ko weesu
ah du foofu la waaw dun des ni falama an bawum bi asmaayum yàlla nag ni alama yaqul ndax waxuma woon la comme ñeen leen ñu ni xew mu ni nee na ka man axlamu xam naa xay ba samawaati yàlla nee na xam naa lu weesu loolu lam waxoon ni inni axlamu maa laa taxlamuuna nee na xam naa lu weesu loolu lu weesu loolu mooy lan axlamu xay ba samawaati xam naa kumpa yi di nekk ci asamaan li ngeen fi umpule lépp xam naa ko wal arleer ak mboolem li ñu umpule ci suuf yàlla nee na xam naa ko waalam xam naa maa tuddoon li ngeen feeñal ci seeni wax ba wax ko wa maa kuntum ak la nga xam ne nekk ngeen takk te mën a di ko nëbb xam ne du ngeen ko tudd ci seeni wax yàlla nee na xam naa ko sawaan minkum man asara alxawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin waskur fàttalikul is xul naa waxtoon waxee lil malaayka ci ñeel malaayka yi usjudu sujjóot leen li aadama sujjóotu tahiya ba sajjadoo ñëpp sujjóot ilaa iblisa ndaleeg naagukat ba kan naagu yërmande yàlla moo di abdul jinni ilaa iblisa ndaleeg lànkkat ba balasa balasa naagu lay firi kaxab laxbaar lahi kaxab laxbaar nee na ini iblis layin nekk na di bëkk néegu àjjana ñeent fukki junni at mu nekk bëkk néegu àjjana ànd naag malaayika yi juróom ñett fukki junni at jiite leen nee na waar na malaayika yi ñaar fukki junni at nee na nekk na di sangab kuréelu yoone yi fanweeri junni at nee na nekk na di sangab rooxaane yi ni junni at nee na wër na aras fukki junni ak ñeent mu di ko wër comme ni ñuy wëre kaaba gi nee na mu ngi tuddoon ci àdduna aabid jaamukatu yàlla bi asamaanu ñaareel bi kon asamaanu àdduna bi noonu la tuddoon asamaanu ñaareel saa yi dëddukat bi ki dëddu àdduna ñetteel bi mu ngi tudd aarifu billahi ki xam ki yàlla ñeenteel asamaan mu tuddoon fi wàlliyu juróomeelu asamaan mu tuddoon fa teq yu ku ragal yàlla juróom benneelu asamaan mu tudd fa xaasim bëkk néeg bi wa bi saabeet asamaanu juróom ñaareel mu tudd fa asaasil loolu lépp ma nga tuddoon ca lawil mahfos nag iblis moo tax musiba mi dal ko muy abul jinni yàlla sette ko muy setteeg setteeg mun xatte setteeg mun xatte setteeg mun xatte laysa min al malaikati xaala bi kasaaf wax na ca kasaaf kasaaf ci sara boobu le nee na iblis yàlla tudd na ko ci alquran setti ko nee na ci mu baamu ko ci waxtaanu iblis ci juróom-ñaari béréb ca baqara ak laraaf ak ijri isra kahfi tahi moo tax mu ne ilaa iblisa juróom-ñaar la kaa ngi nañu juróom-ñaar la abba laan abba ijri abba tahi bu dee baqara abba ca topp bu dee ijri tey abba ca topp bu dee tey abba ca topp mu ne bañ abba nag ñeent la muy naaya arbaa laqakay lam yakun laraaf xaalaa nga laraaf lam yakun laraaf xaalaa nga lisaay ah kaanaa nga kaxfi istakbara mi si njomban kaan yi de loolu lañu wax kaan yi loolu lañu wax de
eh jàmbaar lañu ah man waa ba nee na kaan dafa am xam-xam te xamu ko
est-ce que wastakbara Musa koo gëm ngirlu naka nga gëm ngiral lank wa kaana nekk na ne kaafirina bokk ci yéefari ci xam-xamu yàlla waxul naa nu wax yaa Adama yow Adama ajanaa ngi dëkkuwaay baa ngi uskun dëkkal dëkk na fa lu yàgg nag ay junni at uskun anta dëkkal anta yow te booba kenn xamagul kuy xawaa dëkk na fa lu yàgg dëkk na fa lu yàgg yàgg yàgg ci kër googu ci dëkkuwaay boobu kenn bindagul xawaa moo tax góor di jiitu jigéen ci kër moo tax ñu tuddee ko jëkk kër
jëkkër jëkkër waaw jëkk kër
yooyu day xam-xam loolu it may créé jàngal yu bare waaw dëkk kër dëkkal dëkkal gi nag war nañ koo xalaat bu baax xam nga sukk naa moom alaaji xam nga sukk naa moom xam nga la ciy mujj rek sukk naa waxu ko saxal dëkkal dëkkal rek bu sa dëkk jeexee nga jëm Hmm. ante yow wa saw jukka ak sa soxna sa way lëppoo muy xawaa dëkk leen ajjana waktu laa lekk leen ñu ne ci ajjana raqadan ci yolam ci naataange du jafe ci yaatu yaatu ay si surtuma fépp fu leen neex lekk leen ay si surtuma fépp fu leen neex ngeen lekk ji fu leen neex ngeen año ji fu leen neex ngeen reere lekk rek meññet maa ngi dend ak yow boo doxee mu dox nga tëdd mu tëdd nga jaaxaan mu jaaxaan nga dijju mu dijju tiim sa gimiñ ay si surtuma waaye kat wala taqraba bu leen jegeñ kat ay si sajarata garab gii bu leen ko lekk ñu hunta am tëtt kon wala ñu ni resin la bu leen ko jegee kat fa tàkkoo naa da ngeen nekk yéen ñaar mi ne zalimi ne bokk ca way mooy ña paasa lahuma daa di waral nag seytaanu dafi pexeem daa di waral nag seytaanu mu waralal leen nag luy tax ñu lekk ko paasa lahuma seytaanu waxtaan wa dafa gudd nee na fa axrajahuma fexe na daal ba génnee leen mi ma kaana ca naja ñu àjjana ji ñu nekkoon fii ci xéewal ga waxul naa nga wax yow aadama ihbitu xam nga baatub subóot day jóge ca kaw jëm ci suuf mooy wàcc ihbitu ihbitu ilal ardi wàcc leen te bu ñu naan di wàcc na léegi place bañ ko tegoon nekkatu ko wàcc na wàccee nañ ko ihibitoo ihibitoo ah taawos mooy dama doon gi ñu sànq naan waxtaan yo gudd na piccum jàmb ma waaye yore ci asiyatu jëlaa lay nu foofu indi na ko pëccum jàmb ma ak jaan ja du noonu la jàmb ma ak jaan ja taawo su moo di pëccum
waaw moo moo moo picc jàmb jàmb
mooy jàmb wala jàmb de la ko wala fi wax mooy jàmb njaay njaay la dëkk mu bëgg àdduna la sanget sanget rek firi laa fi mooy mi tam ñu ne foofa la newoon ak aadama ak jaan ja seytaane fexe ba génne leen ñoom ñëpp rek ñoo génnandoo loolu moo tax muy ibatu nekk jàmb moo tax mu ne invité waaw
ñoom ñëpp rek ñoo génnandoo wàccu daraja la wala wàccu place bi wàccu daraja la wala wàcc ko waaw génn ci génn ci génn ci génn ci àdduna moo moom moom dana ñu àjjana waaye dana dellu kenn reewooke bu ko iblis la ñu reewooke moom la li ngeen di def bu ngeen di réunion ba yàgg ñu ne suspendre nañ ko xaw ma loolu la daraja ja la ñàkk daraja ji dana ko sañalaat ca la ras waaw dana ko sañalaat daraja jooju ko yàlla joxoon moom la ñàkk waaw dee garaat ko waaw kay waaw kay loolu laa bëggoon a wax ko dee garaate wax nañ ne aadama waxtu sujet ci nattale la dugg àjjana diggante bi sax ñu génnee ko mu génn yàggu fa
ci takk tam la gis ñu di ko ñu di ko aburé di ko di ko takk six heures ñu di ko bravo mu malaaka yi di ko takk muy dugg six heures ñu bravo ko muy ñàkk na witoo ah mu ni nag ilal ardi antuma ak ñooñu picc moomu kooku doon laaj baadukum lenn ci yéen nag lenn sët yi addu noonu la ñuy doon li baalin ku nekk xam na ni jaam kay noonu doomu aadama la ah wala kum ñeen la leen nag mustaqarun ab saxaay fi lar li ci suuf mawdiu xaraar wa mattaahun akub yóbbal ma tàmmatoon lu ngeen di bànneexoo ilahin ba seen ba seen dig jeex ba seen waxtu dund jeex ngeen faatu ngeen faatu ah fa talaxa jot na aadama ci daraja yonent bi nag la amee tur yi nga xam ne moo tax ñu nangul ko tuub fa talaxa aadama min rabbi ci borom kalimaatin mu bàyyi ko ci borom ay baat ana luy baat ya fa taaba ci baat yooyu la ko yàlla nangul mooy rabbana salamna anfusana fa taaba nangul na ko tuub nangu nag tuub alay ci aadama ci baat yooyu ba mu xamee ni tooñ na boppam innahu ni ki moom yàlla huwa moom tawaabu mooy kii nangu tuub rahimu mooy ki taqoo yërmande waaye daal lu mën di xew xul naa nu wax invité lu mën a xew wàcc leen rek ñun xaa ngeen bàyyi ko ca àjjana jàmm leen mboole nag yéen ñëpp jóg leen foofu kër gi daal na ñëpp génn ñëpp nañu génn abal leen ma sama kër ah jàmm leen mboole jaan jeeg taawus baag ñëpp ak aadama ak xawaak ñëpp nañu génn yéen ñëpp ci bitti wàcc leen ah iblis nag lam doon waaye nag ay wa yëpp ci boppam la mujj moom mi nga xam ne génn na te du dellu am nañ nag ñu ni dana mas a dellu waaye am nañu contre loolu nee na seen maa yaateenakum dem dikkal na leen huddan ak njub min nii gu bàyyi ko ci man yàlla muy kitaabun wa rasulun téere alquran ak yonent bi bu leen ñëwalee yàlla ngi wax ak ñoom nag ci lisaanul xaal fa man koo xam ne tabee topp na tabee topp na daaye seen njub mu gëm ko falaa xawfun déetu ragal alayhim ci ñoom wala ndeen ñoom yaxsanoona ñuy jàq dara ci àllaaxira duñu ragal dara ci àdduna duñu jàq dara ci àllaaxira amul ragali àdduna amul njàqare àllaaxira maanaam jaamukati yàlla yi buñ dee dee malaayka yi day dend ak ñoom naan leen alaa taxaafu wala taxsanu mooy falaa xawfun alayhim wala hum yaxsanun adduna mii ngeen won gannaaw bu leen ci am lu ngeen di ragal wala hum deen ñoom yaxsanuuna bu leen am aw naqar kon ci adduna bu leen amit lu ngeen di ragal ci adduna mi àllaaxira mii ngeen jublu falaa xawfun alayhim deetu ko ragal ci àllaaxira mii jublu wala hum deen ñoom yaxsanuuna ñuy am njàqare ak rëccu ci àdduna mi ñu woon gannaaw fi laaxirati bi an yadxuloo jannata wallazina mooy gaa ñoo xam ne kafaru weddi nañu yéefar nañu wa kasaboo tañu weddi bayat naa sunu alxuraan bi ulaaka ñooñu gaa asaabu naari waa sawaraangoog ñun ñoom te xaalidoona way sax lañu fiha ca sawara xaalidoona fiha ndax dafa mel ne def goo xam ne gi du dañ mukk kon nag dañ koy sax ihmal li dunyaaka ka annaka ta'isu abadan wa ihmal li axiratika ka annaka tamuutu xaddan ihmal li dunyaaka ka annaka ta'isu abadan mu ngi mel ne da ngay dund faaw ndax jëf ju baax ji ngay jëf boo demee àlaaxira ñu yóbbu la àjjana kon yaa ngi ci ta'isu abadan wa ihmal li axiratika ka annaka tamuutu xaddan mel na ëllëg nga dee moo tax yàlla di wax xaalidoona ihmal li dunyaaka ka annaka taisu abadan ndax bu dee xéewal xéewal ga day sax ngay dund faw bu dee safaanu xéewal day sax ulaika ashabu naar ya xaalidoon addis bu niru lu yomb la te jafe jafe dégg yaa bani israila yéen bani israila muy awlaadu yaqub uskuru fàttaliku leen niimati sama xéewal la ci nga xam ne anante xéewale naa ko aleykum ci yéen aleykum ci yéen mooy seeni baay xéewale woon naa ko aleykum ci yéen